بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عباس رضي الله عنهما jëlee nañ ci suñu sang Abdullahi ibnu Abbas yal na yàlla gërëm ko moog baayam qaala mu ne qaala rasulullahi yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallama wax na ne ida zulzilat taadilu nisfa alqur'ani suratu ida zulzilat il ardu zilzaalaha dana tolloo genn wàllu alqur'an wa qul huwa allahu ahadun taadilu huluha alquran suuratul ixlaas ki qul huwa allahu ahad dana tolloog ñetteelu alquran un tiers wa qul yaa ayyuha alkaafiruun suuratu qul yaa ayyuha alkaafiruun taadilu rubu alquran dana tollook ñeenteelu alquran kaar maanaa suñu xaajee alquran ñaar suratu zalzala dana tollook benn ba suñ ko xaajee ñett xul walaaw dana tollook benn ba suñ ko xaajee ñeent qul yaa ayyuhal kaafiruuna dana tolloog benn ba ana lu lool di firi boroom xam-xam wax nañ ci ay wax yu bari benn ba mooy alquraan dafay wax ci ñaari yëf dundu àdduna ak dundu àllaaxira te bu ñu xoolee ida zulzilatil ardu zilzalaha dundu àllaaxira lay wax kon xaaju alquran a ngoog alquran buñ ko xoolee ci ay tem danañ gis ne dana wax ci ñetti yëf benn yëf ba mooy nekk gisoo borom tabaraka wa taala nekk di kenn ñaareel ba événement yi nga xam ne xew na ci histoire ñetteel ba ndigali borom bi kon da mel ni sujet fondamental wala sujet fondamentaux yu alquran ñett la histoire ak ya ca xew commandement wu yàlla yi ak ni kennug yàlla gi te suratul kennug yàlla gi wax mu mel ni kon mooy buñ xaajoon ñetti thème yu fondamental benn ba xulwalaaw moom lay waxee bu ñu xoolee xul yaayu ne dana tolloog ñeenteelu alquran mu mel ni alquran dana jottali ko ñeenti sujet prophethood li jëm ci wàllu prophétie prophète yi seenug prophethood seenug yonent yonentug yonent yi salaatu wassalaam ak commandement wu yàlla yi ak événement eh, histori historique yi ak kenn yàlla gi tabaraka wa kon mu mel ni bon sóoratu qul kaafiroona mu ngi waxee kenn yàlla gi di dàq bokkaale boo ko génnee ci ñeent yooyu muy benn bokkan ñii ne déeréet boo jàngee qul walaahu ahad wala nga jàng idaa zulzilati wala nga jàng qul kaafiroona la ca yonentu tudd daa ci yool boo jàngee sóoratu idaa zulzilati lardu zilzaalaha dañ la bindal yoolu ku jàng genn wàllu alquran nga jàng qul huwa allahu ahad ñu bindal yoolu ku jàng boo xaajoon alquran ñetti xaaj benn ba nga jàng qul yaa ayyuhal ñu bindal yoolu ku jàng ñeenteelu alquran kaaru alquran wax yi bari nañ ci nañ ko seetlu dañ seetlu li yonentu jublu te yàlla yàlla gisloo ñu ko waaye yii yëpp mën na mën na mën na cee dajee nag bale dàqul bii nekk gi mu nekk di jottali ko ab sujet mu représenté genn wàllu alquran wala surusu alquran wala robo alquran du tere it mu mën a indil yool ki ko jàng yool bu tolloog genn wàllu alquran sulusu alquran mbaa rubo alquran yal nañu yàlla dégglu alquran xamloo ñu ko jëfeloo ñu ko te jëriñ ci ci biir jëriñ ci ci biti ci àdduna ak ci àlaxira bi barakati maulana rasulillahi alayhi salaatu wassalaam hada wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi al-aziim